est-ce mën nga ñëw dikkalaat tuuti rek ci Lirou ah, Diane li mu la waxoon. waa dama koy mosal dañ doon wax téléphone. whatsapp bi ñu waxee bi ma ko vocalé ma ne ko waaw damaa toog ak benn kilifa di ko tooñ. kilifa bi nee na kat bu Lac de Guiers daanee Eumeu Sène Balla Gaye dañ koy dóor mu daanu Bombardier day dóor Bombard kii mu daanu mu na Balla Gaye daan ma ne ko ah kon jeex na. kon Balla Gaye daan la waaw mu ne ko kon léegi Eumeu Sène day daan fekk dañuy tooñante balaa ñi may déglu tege ne dëgg la quoi. dégg nga damay wax te yàlla tax quoi bugguma ñu wax ko dara dañ moo ma tooñ. gémm moom dafa génn ne dañ dañ sama gémmiñ dégg nga ma ne ko nag dinaa woo sit yi sosal la ne ma ne ko yow yaa ne ma Lac de daa taab ci pokotaan na Eumeu seen jaar foofu mu ne ma baal ma ak mu daw quoi mu daw. te doon wax ci moom mu ne ñoo jàpp ma dëggul ci moom Lac de Guiers kii euh, liiru jaan daa ñëw tali bu mag sama xarit benn bakkan tooñ ko ma foral ko. ba ni ma lay wax ni kooku du ma wax moom waaw. bu jógee Guédiawaye ñëw ba Pikine tali mu mag Ndaayaan. ànd ak jéey promoteur. Mhm. ñu tooñ ko fa. Liiru Jaan ma ma ma ak moom dañ koo tooñ Liiru Jaan waaw ma foral ko ba tey kooku du ma moom laa ko bàyyi. la dëgg kii ah, Liiru Jaan xam na ki may wax bu baax. ba nii ma lay wax nii def naa ci def naa ci moom kot parce que loolu man bu ma demee géejawaay yaa ngi may dégg sa di jox ndox loxo nuyu mu ma bul ma nangam ndeyam nuyu la wax liiru jaan ma ne ko kii waroo ko saaga kii yaa ko tooñ bul téyel sa loxo ko war wax ma ànd ak liiru jaan parce que daf koo tooñ man loolu laay def buñ ko tooñee man dam koo taxaw fu ne génnee ay sorties dama junj rek taxaw ci ba ma ba ñëpp xam Pikine yëpp xam ne kii nii taxaw naa ko mais biñ ko dékkee sit muy gërëm daa gërëm ñépp tëb ma waaw. ba pare mu génnaat sit ne tamit dafa bëgg a tëj sa làmmiñ. non non du liiru jaan ki doon jot liiru jaan laay wax. liiru suma xarit la déggoo na la bi ko sama xarit benn bakkan tooñee dama ñëw ànd ak liiru jaan parce que dañoo tooñ liiru da koo tooñ parce que ku lay jox loxo ah asalaamaaleykum imaginel nga bañ ko fay loolu lan ngay wax ak suñu borom waxuma la ku lay jox loxo nga saaga ko loolu ci tooñ la bokk te moom biñ ko tooñee damaa dem ba mu sës bi mu biñ ko bi mu demee am tolof tolof yi génn dafa gërëm pikin yëpp tëb ma waaw. dafa gërëm ñépp tëb ma tëb ma li ma mel dañ ma ci fekk si li ma mel dañ ma ci fekk si man kenn du ma wax Pape Sarr bu Eumeu Sène Pape Sarr bu Pikine lañ may wax waaye Eumeu Sène bii Eumeu Sène bii fii laa ko dugal mu teg ma fi nga xamante ne fa la teg Pape Ngom fa la teg Lanjang fa la teg ibusi fa la teg xalem yooyu rakkam yi fa la teg ay magam fa la ma teg man tamit dam koy jàpp nag lan la ñu bëgg ñu génne di ko sànni ay xeer di ko wax mu noppi rek man ma taxaw di leen seetaan boo ko waxee ma wax la loo xamante ne dam lay tegal ay preuve ba pare yóbbu la vaar. <laughs> yóbbu gaay dam lay yóbbu vaar nga xam ne duma la sosal man du ma sosalaate lépp lu ma wax ci site rek. nañu toog dama indi damay génne preuve wax la ko ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla dafa def saa yu combat am ah, Boy Niang musaana am ah, Lac de Guiers musaana am ay affaire police am fi yàlla def na <laughs> bii affaire police amu ci dégg nga ñu ñuy jéem a tottal waaw yàlla def na bii ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax yàlla na continuer nii saa yu combat Lac de amoon fii wala ñu nag waa géejawaay affaire police am ci ay doomu Pikine di ñu yóbbu police mhm. waaye bii du ci am waaw du ci am na def lu ko neex na def lu ko neex borom mbaar bi def lu ko neex ñoom nañ def lu leen neex ñi ci nekk ñépp nag association boobu nañ ci def lu leen neex ñun ñun ñuy xaar borom mbaar bi def lu ko neex ñun daal dénk nañu combat bi ñëpp waa Gàmbi waa Kaolack waa Tiwaawan waa Touba sama nit képp kuy sama nit maa ngi lay ñaanal ngeen jël kurus bi ñaanal seen doom amal seen ñaanal ma lu dëgg parce que sonn naa ci trop kombaa bi xam nga lan la ma jox combat Balla Gaye numéro 2 bombardier coono bi ma daj noonu moo répété waat nii coono boobu noonu ma daj moo répété waat nii dem naa sama yaay mu ñaanal ma jox naa ko li ma koy jox ma seddal xolam mu ñaanal ma dem naa fi ma war a dem man li ci des ëmmat seen la ak la dageer du Eumeu seen ak Pape Sarr ci biir géew bi du Eumeu Sène ah, ak Mouhamed Ali Ndiaye ci digg géew bi du Eumeu Sène ak liiru Diane du Eumeu seen ak kenn Eumeu seen ak Lac de ñooy des ci digg géew bi ñun dañ koy gunge rek bu jegee saako bi ñu wane ginnaaw taxaw ci cumukaay bi ñoom ñaar ñu jëflante ko kon na rafet bu ci kenn wax wax ju ñaaw xam nga sorti bi mu defoon nag nii nii combat bi mel nii bu yëkkatee micro bi ne dama doon sosal ama seen rek ma toog suñu kër. toog seen kër waaw man xam naa ne ay sos la ay sos ay xuloo waale Eumeu Sène ñoo ñëw ci moom wax ko lii wax ko lii ay ñu joteeg Eumeu seen laa la wax. ñu dem joteeg Eumeu ñoo dem ci moom. dégg nga yooyu noonu mbëri duñ ko def mu xam ni kii moo yoroon Eumeu Sène combat moo combat ñoom ñaar Mohamed Ali Ndiaye judoka la xaw ma karatéka karaté dañ ko xam ci làmb wala judo ay Mohamed Ali Ndiaye dañuy bëre Mohamed Ali Ndiaye ñëw ci Eumeu seen fekk Eumeu Sène apte Mohamed Ali Ndiaye di videur Paris waaw videur la waaw videur la gardien kat kuy garder boîte loolu la waaw loolu la loolu lay liggéey foofu liggéey la nag métier la du dëgg mais wax ma ndax wax na Eumeu Sène na loxo bii jóg na loxo bii jóg karaata dañ koo xam ci làmb ah champion champion du monde karaté la wax te waa gi si nëkk la ko dóor mu daanu ñu jox ko médaille loolu la wax ah ma ko siy félicité si loolu waaye Mouhamed Ali Ndiaye yorul ndam Mouhamed Ali Ndiaye yoroo ndam la dëgër bàyyi ki ngay insisté naan Mouhamed Ali Ndiaye yorul ndam du yàlla Mouhamed Ali Ndiaye nit la comme Pape Sarr sooy ut ndam ñaanal borom mbaar bi ñii la nekk ne di la coiffé yooyu ñoom du ñu yàlla bi bi leen di yàlla di yóbbu du leen tàggu bàyyil ñi ngay jël di leen teg place yàlla. lii làmb la foowu dof la làmb bi ñuy nekk nii di si rey suñu bopp foowu dof la ñu ngay jël diw diw diw diw ay boromu daraja nii alalu aduna kese lañu yor ñoom ak waaye yow ana suñu maam lobaat ana Ndiouga Kébé ana Djili Mbaye ñaata la yoroon ana kii bàyyi na fi cité ah ana ñu yàlla na leen yàlla yërëm ah alal la yor ak daraja rek la yor fii. duñ ko yóbbaale biir pax baal ñooñu ngay baasewu di dëgëru tega ne ñoom ñoo yor ndam. moom ndamam ci ñooñu la ko teg si ñooñu la ko teg si ñooñu lañ ko la ko teg tudduma tuuru kenn nag mais si ñooñu mu teg ndam ñoom ñooy maye ndam ñun dañ lay bàyyi ñooñu may la ndam ñun ñu ñaan borom mbaar bi tey wax dafa jot nag ma wax ko parce que démb mu ngi junj Mouhamed Ali Ndiaye Mouhamed Ali Ndiaye day yàlla. Mouhamed Ali Ndiaye du yàlla du yonent bi ki ko sàq moo ñu sàq Mouhamed Ali Ndiaye munu la may ndam da lay liggéey loo topp di insister Mouhamed Ali parce que moo yoroon Eumeu bi ngeen di bëre yéen ñaar da ko yore yor ko di ko dawaloo gradé si escalier yi di ko defaloo physique ñu ko siy gërëm mais yow indiwul yàlla moo may Eumeu Sène roi des arènes yàlla. yàlla moo tax Eumeu seen daan Balla Gaye yàlla mun na may Balla Gaye daan Eumeu seen dégg nga mais waxam yi muy wax ay waxu jaxase kese lay wax ay sérifoog yu kenn xamul ñooñu dañuy ñaan rek dañuy ñaan rek dañuy ñaan du dëgg mu ñëw yem ci ay ñaankatam du dëgg ku nekk dem ku nekk dañ laa fay nga bàyyi ngay boole ci làmb bokk ci waxu jaxase loolu du la may ndam Lac de waroon na paase fii bu yàgg ñëpp a mos lu des arènes moo tax waxuma bu mu ko jël de mais bu ko jëlee oh roi des arènes bu bëri match nii la ñuy am barke rasulullaay roi des arènes boo xamante ne dina bëri match niil de mooy ñi meroon ñi meroon nañu ñëw du dëgg ñi meroon nañ ñëw yaa ngi may dëgg ñi meroon ak képp ku ku ñu doon na nga ñëw ñu ma ki wax xam na boppam na ñëw munu ma ko jëlee Pikine na ñëw dugg si mu xam ne yenn erreur yi bu mu ko dalati na ñëw kenn ëppalewu ko pikin mais yenn erreur yi cent pour cent pikin da ko war a bañ barke Seydina Mohamed billahi wallahi tallahi këru cent million almadi ah këru dix millions Pikine moomu ko gënal billahi wallahi combat bi wéetu ma ci de ku jàpp ne ñun dañ see wéet yaa ngi nax sa bopp wéetu ci de dañoo mën bés combat mag la Boy ñaar dañoo taaral bés bi dégg nga ñu nekk fa kilo ñoom ñu nekk fa liibar ama <laughs> booy bëreeg moom fii eh? liibar ngay doon fii suñu koñ Pape Sarr war a génn fii ak di dox ah du dëgg maa ngi wax soq ñëwal soq Bac Seras Mame Balla Ama Balde Boy Niang maa ngi leen di woo waa pikin mbooloo xam sa cosaan ñoom ondu la fu ñëw leen ñëw leen taxaw ñu defaraat suñu Pikine bii lépp loo xamante ne lu ñu xam ne lii nii nii nii doxal suñu Pikine ñu toog oxygène waxtaanee ko mu dañ fii li nekk ci xol yi dañ man loolu laa xam man loolu laay def maa ngi woo pikin waa yëpp maa ngi woo jasporaa yëpp waa jasporaa bi Italie France Allemagne Belgique Suède mais maçon spécial gambien yi ñooñu laay tëjee gambien yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi xaar Dembo Dieng di président fans club si nga bu Gambi ñoom nday ba ñëpp bu suma limee damay juum maa ngi woo waa daaru dégg nga kafe ga di woowaa ndaayaan essence tali bu mag di woo waa marché Thiaroye di woo mafia Moussa Ndiaye bi ñoom Birahim di gërëm ñu nekk ci prison bi ku mel ni ñoom Ousmane ñoom Tafa bu xees ñoo ñëpp maa ngi leen di maa ngi leen di masawu ay ñi ma doon ñi doon nekk sama ginnaaw la woon tey dañoo am nattu maa ngi leen di ñaanal yàlla di di ñaanal nag bébé Diène maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla na ko may ñaan rek ministre de la ministre euh, kii ki yore justice bi di leen ñaanal rek ñu jéggal ko xale la dafa juum rek maa ngi ñaanal bébé di ñaanal tamit Coly Faye moom it dafa am ay tolof tolof kolifay bu ne woon bul faale maa ngi koy ñaanal yàlla na tolof tolof yooyu dañ ci kawam yaa ngi yaa ngi may dégg képp ku nekk ci prison bi rek man Pape Sarr maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla teggil natt yooyu tegu sa kaw maa ngi woowaat waa daaru bu baax a baax a baax di woo waa cité police cité Sotiba xurunaar tali bu mag tali bu bees riidis Kër Massar benn baraak parcelle géejawaay ñëpp surtout waa Géejawaay maa ngi leen di woo parce que dama fa bëri soppe di nuyu bu baax suma xarit Siiga Riiga mu ngi amoo siis di doomu Géejawaay di cent pour cent Pikine Siiga Riiga moom la Pape Diouf di woy naan ko Siiga Riiga kooku laay tëjee Siiga Riiga sonn na trop ci Pikine maa ngi koy nuyu bu baax mu ngi amoo siis xam nga di gërëm nag sama xarit yi nekk si la daguère maa ngi leen di nuyu waale ñoom bi ñu ñëw ci signature bi démb ñun ñëpp ñu doon doon waxtaan bokk ndey bokk baay ku mel ni Alioune Seye 2 maa ngi koy nuyu bu baax ak papa boo jinne ñooñu sumay xarit lañu séeri Ndeye Gueye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di ñaanal ñoom ñaar ñëpp yàlla may leen jàmm ba bés ba di ñaanal suñu mbër yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy bu sedd guy maa ngi koy ñaanal Eumeu seen di wax Sénégal yëpp nañ ko ñaanal jërëjëf